bëri na ñoo xam ne du ñu yëg plaisir ci seen sëy moo xam ku góor la wala ku jigéen la loolu bu la dalee jàppal ne feebar la nekk lu normal. loolu war a tey ñu nar a tontu ci laaj bi ku dul yëg plaisir ci sëy ku tontu ci laaj bi dinañ leen wax lan moo nekk ci gannaaw ku dul yëg plaisir sëy maanaam lan moo ko waral lan mooy cause bi ak lan mooy prise en charge bi lan mooy faj bi bu fekkee gan nga ci kër gi. mën nga partager ngir yee képp koo xam ne yittewoo na vidéo bi similaa ngi tontu ci laaj bi li nekk ci gannaaw pour dul yëg bànneex ci sëy ñu naan ko ni bu fekkente ne yëgatoo bànneex waaye méttin nga yëg loolu li ko waral bokk na ci sa stress vaginal maanaam sa kanam du tooy bu fekkee sa kanam du tooy doo am bànneex waaye douleur ngay am ay méttin ngay am infection également mën a nekk cause bi lan mooy faj bi paj bi mu ngi dépendre ci cause bi bu fekkente ne sa kanam dafa am sa sécheresse vaginale maanaam duy tooy da ngay fexe am lubrifiant booy sëy nga jëfandikoo lubrifiant bi ngir mu tooyal sa kanam boobaa da nga reprendre sa plaisir da nga reprendre sa bànneexu sëy bu fekkee infection moo nekk ci gannaaw da ngay fexe traiter infection bi ngir mën a reprendre sa plaisir am na également yeneen conseil yoo xam ne soo ko defee mën nga reprendre sa plaisir sëy bokk na ci changement de position sexuelle maanaam ngay changer tëddaay yi nga xam da nga koy tëddee beneen conseil bokk na ci ngay contrôler say émotion maanaam bu fekkee da ngay stressé wu di bëri li ngay stressé wu boo demee bay sëy nga fexee def loo xam ne dina dindi stress bi ngir mu bañ a impacté ci li nga xam ne mooy sëy bi mbokk yi tontu bi loolu woon bu fekkee vidéo bu neex na la mën nga bàyyi benn pouce ci commentaire yi ñu feebar yàlla na yàlla fëgg seen bopp leen jox dig daje beneen vidéo ngeen jëf